vagalam vagaloo du jour au lendemain noonu lay waaye noonu lay waaye noonu lay waaye waaw géej waaw waaw waaw. sama gox. sama gox. sama gox. sama gox. sama gox. sama sama gox. mon quartier. sama gox sama gox. sama gox mon quartier. sama gox. sama gox sama ak li naqari. damay dundee ca asalaamaaleykum mbokki xarit ñuy seetaan dalati leen ak jàmm ci seen émission sama gox mon quartier sama gox nag tey moo di quartier Médinatou Rassoul nekk fii ci commune bu Kër masaar nu ñëw xool askan wi ana naka nañ fi toogee lan moo leen fi neex lan moo leen fi naqari lépp di leer ci biir seen émission sama gox mon quartier fii ci quartier Médinatou Rassoul ci commune bu Kër Massar. Mbariya vagalam vagaloo du jour au lendemain noonu lay waaye noonu lay waaye noonu lay waaye waaw ngeen waaw waaw waaw mbariya mbariya njàng faatiha falaxin na salatul faatiha door a commencé ci waxtaan wi bismillah na Mariam Medinatu Rasul dafa bokk ci benn gox bu ñu naan Boune am yeneen quartier tam yoo xam ne tamit wër nañ ko loolu boo ko boolee mu nekk Boune xam naa mi ngi toll ci ñaar fukki ak ñeent quartier bi ci lañu ko commencé woon ba léegi li tax ñu tudd ko wu tur itam day turu mag mag waa nga ñëpp ko bëgg ñëpp ko sopp ñëpp ñëpp bëgg dem moo tax ñu tudd ko loolu. buunu village dafay dëkk bu yàgg ndax ñun biñ fi toxu si ah événement naare la boobu fii yëpp àll la oto yi dem Malika wala yi dem yëmbal di dem Malika da ngay gis oto yi waaye comme suuf si lébu la nit ñi di jënd di dëkk bi jëndee di dëkk ba population bi bari. taw taw bi commencé bi taw bi commencé damaa xamul nag ñun ci ni ma ko mën a waxee dëkkin bii eh, tabax yu bëri ak ñàkk espace yi ak ñàkk canalisation yi ndox mi ñëw bi yàlla defee ndox mi ñëw jóge ci taliba ñëw dugg fii ndax suñu digganteeg fi taliba daanaka léegi tey li ko mat un kilomètre bëriwul bi ndox mi defe paawaas ñëw jël ci dëkk bi lu bari waaw léegi nag quartier yi gis nga ko nii quartier yi sax dañ noon mairie dafi ñëw def ko euh, limité ko maanaam quartier ba ne ñu xam fi ñu waaye dem nañ ba mënatuñ koo kii mënatuñ ko def def limité bi. dafa nekk quartier boo xamante ne dafa bokk ci buun buun nag nekk village boo xamante ne de traditionnel lébu parce que quatrième village traditionnel lébu bu Sénégal ñu créer ko en 1774. par le feu Mansour Fall depuis boobu ba léegi boo xoolee Boune am na 18 quartiers mais ci 18 quartiers yooyu mën nañ xam ne mën nañ jàpp ne Médinatoul Rasoul ci la bokk mu am yeneen quartier comme Amdalaay 1 Amdalaay 2 mais euh, Daaru Salaam 1 Daaru Salaam 2 Médinatoul Munawara ci Médinatoul Rasoul askan wi bënd mi moo leen sonal donte ni nag parti yu bëri daal dinañu fer te jii gis nañ ni lii di barax ba ma nga fa di leen wéy di sonal ba tax ñuy sàkku nag ñu daat leen fa defal ab canalisation ngir ñu mën a dund ci jàmm ndox mi bi mu ñëwee euh, ba ba nit ñi euh, ñëpp jóg histoire yi jàppal bay ji kenn ku nekk ñi am mooy sëkk sëkk ñi amul mooy sëkk ñu histoire ñoom ne ñi am mooy di sëkk ñooñu jox ndox bi biñ fi coowee di baare tali bi waaye loolu saafaru ko ñu daal di def ay pexe ñu daal di def association euh, ànd tab ànd tab lañ fi njëkk a créé ci inondation bi ndox mi ñu commencé di dem ci pat kilifa yi Euh, sapeur pompier Malick si woo ñu fi ñu ñëw fi defal ñu fi baas di pompe ndox yi ci quartier yi pomper nañ fi ay at gannaaw gi ñu ne bi euh, Abdoulaye Wade jógee fi Macky Sall ñëw fi la ñëw ne moom lii di solution xam nga nu muy def li commencé ci quartier yii nga xam ne bii moo moo kii te bëri na Amdalaay 1 Amdalaay 2 Daaru Salaam comme ni ko kii limee fukki quartier yeeg juróom-ñett yi ah kenn ku nekk. xëcc kenn ku ne bi mu xëccee jëm sa boor eh, eh, kii sa quartier pour defar ñun suñu délégué wax dëgg yàlla góorgóorlu na moom moo fi njëkk jënd ñett ñaari machine ñaari machine un un million huit cent xaw ma moo indi ko fi. suñu jafe-jafe li moom xam naa dañu koy wax rek waaye ñëpp teg nañ ci seen bët coon yu metti ci digg ndox meeg barax bi. suñu doom jii tey di liggéey ci bassin yi nu mu tuddati ci hôtel yi ci euh, fi ñuy sangoon piscine yi muy doom yi Abdou Ndiaye ñu ni wax abidin moo fi daal di installé am machine bañ ko installé amuñu fu ñu versé ndox mi ndox mi def def ñu problème munuñ koo tuur ca forêt ba waa forêt bi ne forêt bi lu ngeen ko fa tuur ñuy ñëw Kër Massar bañ fa defee canal yi ci quartier Atma wala Doubalès les falo am na quartier ki ñuy wax mbay ki benn taximan bu ñuy wax xamu nañ seen moo ko yoroon yàlla def bi mu gaa ñëw waa quartier mobilisé jox ko Double Less ñuy versé foofa fekk am na projet kanaal bu fu commencé indi bi yàlla defee colonelu Malick Sy bi ñëw fi ne yorul pompage waaye ki yor pompage bi danañu boole mu woo ko mu ñëw muy ndooy ndooy moo ñu fi njëkk indil baas ñu nekk fi di pompe ñi daanu ko jóg coow li cob jàppal bay ji mel ni bul ma ko xati ndax comme lébu yi jaay nañu dëkk seeni tool ba tool yi jeex nit ñi fu waay am rek sama classe gi fu waay am ñaari mat ñaari mètre ñetti mètre ñëw taxu ñëw dëkk si dëkk bi nag màgg màggaay goo xam ne gi maar day taali ndox mi dëgg la ndoxum yàlla la waaye bu ñu defoon comme yeneen dëkk yi wutal leen ay canal wutal leen yoon yi ñuy jaar wut fa xale yi di taxaw boo na yegg si école ba comme kenn ku nekk sa xolu nday dina sedd waaye bu nawet jotee ñun ñii toog di jéegi buun toog fii ñun ñëpp dañuy daal di boot suñuy doom ba ñu génn ndox mi ñu doog a suñu kër talu ñoo bu nawet jotee nag talatuñu ndékki man mii di wax ak yow njaago bi lañ may wooyee bu nawet jotee parce que sama sër dama koy woot ba mu gàtt su ma ko defu damay daanu su ma xëyee maa ngi daan sama doole ñi fi toog ñëpp dañu xëy liggéey yee woote bi ngeen woote moo tax ñu toog ñax bi ngeen gis ni euh, mbarax bi ngeen gis ni suñ ko aménagé def si ay canal def si ay bassin mu nañ si aménagé ay espace vert dégg nga nit di si féexlu pendant l'été dégg nga si temps moment euh, tàngoor gi mën nañ si féexlu dégg nga mën ci aussi dégg nga donc euh, sécuriser de sorte que du am du nekk danger si population bi. sunu barax bi mi ngi nii fii yëpp barax la ay kër la woon kër yi kër goo duggoon nit a fa dëkkoon lépp toj nañ ko dëkkali leen feneen mais ñun barax bi nga xamante ni si dese nañ ko fi muy ay kër yu toj mbalit yaa ngi fii ku yor sa mbalit fii nga koy ñëw tuur si. ku yor sa mbalit rek fii nga koy war a ñëw tuur si mu àndandoog mbedd mi te mbedd mi benn mbedd la bu ndox mi baree fii kenn du fi jàll fii ba fii nga toog nii yëpp ndox lay doon gis nga ko ni mu tooyee nii te gisuñu kenn gisuñu maire gisuñu kenn président avant muy falu dafee ñëw fii nga taxaw tey presque fi la taxaw muy fee mu ne lii lu dul président munu ci dara te moom bi mu faloo gisuñu ko gis gisuñu ko gisuñu keneen. bi ndox mi ñëwee ba sonn ba ñu sonn ba ñu sonn mennum président du ma ko defal promo moo fi ñëw may ñu pompe ginnaaw yàlla pompe boobu moo fi jëlee lu bari. ñu di ci dund dund bu metti son nañ ci lool sëkk nuñ ba sonn waaye dara teewul rek daal guñ solution. wax ji wax ji mooy wut leen canal ñun canal rek lañ soxla ci nguur gi soxla wu leen nag lu du canal soxla wu ñuy pompe soxla wu ñuy leen lu daal lañ soxla canal daal ñu jàllale. ñun lii lañ soxla su ko defee ñu nekk si jàmm nekk si salaam ñun ñëpp am jàmm. ndox mii dara mënu ko fee jële lu du canalisation loo def def def te amoo canalisation. bu déwénee nit ñi dañuy génnaat donc abandon seen seen kër. ba leen inondation yi songee nag kër yu bëri seeni borom dañoo jénn dem feneen waral Samba Boy ya nekk fa jamono ji di sonal askan wa ba tax na itam lu jëm ci wàllu éclairage public bi bëgg nañ ko fa ngir wàññi ñàkk kaaraange gi foofee. boo leen xoolee fii depuis bi nga xamante ne Euh, inondation yu njëkk yi amoon na fi euh, amoon na bërëb yoo xam te ne dañ leen tojoon bàyyi leen fi mais bërëb yi nga xam ne toj nañ leen bàyyi leen fi euh, boo xoolee insécurité la indi mooy ñeen ñi dañ ciy dem di làqatu di def naka su du noonu léegi nag ñun ñi ñaan état parce que ñun gis nañ ne état moom mooy ki nga xam ne moom dong moo war a wax ci mbir mi moom ñi mën ñu dimbali ba nga xam ne espace yi nga xam te ne c'est des espaces libérés ñi mën xool nan lañ koy valoriser ba nga xam ne au moins buun dina ci mën a bénéficier parce que boo ko bàyyee nii rek mën na indi benn problème insécurité. digg nañu rek nag wax wax digg rek waaye daal dikkuguñu kon ba tey jógugu fi ku xool barax bi xool te quartier bépp nag. ñu lijjanti ñu Kër Massar suñu buun gi làmp yi ñun soxla nañuy làmp soxla nañu poste police soxla nañu emploie de jeune bi ñuy def waa léegi ana pakaseen bi éclairage public bu ñu amee comme ni ñu ko waxee soxla nañ police poste de police wala poste de gendarmerie yooyu bu ñu ko amee baax na lampe courant yi lampe lampe éclairage bi dafa manqué aussi. wax boo dugg rek koñ boo dugg am na barax wala ndox maa ngi fa taa kër gu ñaar kër yu ñett yoo dugg genn kër ga ma bërëm bërëm niwu fi génn kon metti na tiis na waaye nag ah yàlla yàlla jàppale rek ba mu jóge fi. boo xoolee barax beek yoon yeeg yëpp. parce que fii noor bi sax nga fi ñëw mais boo fi ñëwoon nawet bi moom da ngay xam ni carrément fii du dëkkuwaay boo xam ni sax ay nit war nañ fee dëkk ndax wax dëgg yàlla euh, comme yaa ngi doon wax sànq ni émission bi amul politique mais dañuy olof yi dañuy faral di wax ni jaam ngay defal muy xogaliku naan dama koy yelloo waaye gor loo ko defal du ko fàtte ndax ku mel ne Bougane tey gëm naa ni lim ñu defal fii barki Demba Ndiaye indil ñu mot a pompe tax presque ñi nga xam ne dañ dañ doon xuus di dem marché sax presque di dem ak seen tànk. kon yaakaar naa loolu bi ñu ko remercié wul du ñu ko léeg-léeg nag ñun dañuy toog di poser question ñu ni ñun fan la ñu bokk maanaam xam nga tey boo demee Sicap wala nga dem Médina wala nga dem fii ñoom dañu xam fan la ñu bokk mais ñun dañuy laajte ñun fan la ñu bokk ñun foofu la ñu bëgg xam. ñun ñooy yaay xale yi góor ñi bu ñu xëyee dañuy da wuti gis nga heure nga fi ne ñëw su dul woon heure bii nit ñu toog bedd bi doo fi gis kenn du waaj su sa doom wàccee jël fat ci biir toog nag di ko garder loolu. defe naa du defar dëkk ndax su fekkee ne danga ne da ngay defar dangay boot ñëpp ndey seex ngay tëddee. fi mu ne barax bi fi mu ne kenn ñu ci dugub nga jagoo sax ndax rab bu nekk fi wu ne rab woo foog ni amu fi rek am na fii ba tax na fi mu ne guddi fi mu ne xale kenn ñu wul ndax moom guddi guddi lay làqu guddi lay bëccëg lay làqu bu guddi mu génn ba tax na na heure yoo xam ne fi mu kenn ñu wul a jégg benn barax. ah mbaa mbaa uyu la doon uyu lañu doon bokk. fii nii boo xoolee fii mbarax mi nekk yëpp ay kër la woon ñii ñu ngi Tiwaawoon Pël ñii ñu ngi Lac Rose ñii ñu ngi ñàgg te dara waralu ko lu dul kii bi inondation bi te wax dëgg yàlla sonal nañ trop ba fu sonal yem ndax boo xoolee ba xool kenn ku si nekk tey nga dëkk fii daal di tabax sa kër moom ko ndox bi nangu ko nga dem di luye ji xam nga ne loolu métti na te buñ si état jàppale woon loolu di am. fii ci Medinatu Rasoul nag ci Kër masaar benn école élémentaire rek moo fa am di public te lu toll ci ñaari junniy élèves lay jël ñu wasaare leen ci fukk ak juróom-ñeenti classe muy mbir moo xamante ni dafay wàññi performance élèves yi bu ñu sukkandikoo ci seen i jur soo xoolee ci wàllu éducation benn école rek lañ fi am mu benn école élémentaire école élémentaire soo xoolee sa am na plus de deux mille élèves deux mille cinq cent élèves ñoom ñoo fa nekk si dix classes ça bi dafa pléthorique. léegi nag ñun à chaque fois dañuy def plaidoyer di wax état comme moom moo am pouvoir ak ak ak ak mu jumtukaay yi nga xam te mën nañu dimbali ci lool ñu mën a xool nañ ñu la ñu mën a yokkalee ay école publique au moins su ko defee suñu doom yi ñu mën cee jàng parce que jafe-jafe bari na am ñoo xam ne amuñu moyen pour yóbbu seen doom public c'est privé euh, il faut que ñuy état tamit mën ci jàpp au moins ñu mën leen yóbbu privé. forêt baa ngi fi forêt classée baa ngi fi yaatu ba dee mën nañ fa aménager ay terrain def fa lycée. dégg pour que au lieu que suñuy suñu suñuy doom suñuy rakk après euh, examen ñi bàyyi jàng parce que moyen de transport amuñu ko dégg nga ñi bàyyi jàng parce que fu ñu war a fu ñu leen orienté dafay sori du leen arrangé dégg nga donc loolu bu ñu ko amee à côté de nous ñu arrangé. fii benn poste de santé itam moo fi daal di am te itam amul ambulance ki noonu faju fa sax ba wér ca na mu waree ay jafe-jafe la ndaxte matériel amu fa. santé tam boo xoolee benn poste de santé lañ fi am. te soo xoolee personnel bi dafa xaw a manqué trop am na déjà ñoo xam benn équipe boo xam ne nekk na fi ñoom à chaque fois ñoom ñoo jël en charge population mais c'est que ci gën a garaaw mooy ambulance sax déjà ñun amuñu ko fii nii te daf ci baax aussi tamit nit bu fekkee des fois feebar na ci yenn yenn circonstances yi mën ko jël ci ambulance yóbbu ko mais dangay gis ne fii dañoo am sax même problème mu ambulance. gis nga nawet boo demee nawet poste de santé bi da ngay yaakaar ne sax da ngay yaakaar ne. lii du poste de santé nit day ñëw taxaw di xaar ba kenn jóg si lal bi pour ñu defaral ko perfusion donc te population bu dafa dense lu yëpp soxla nañ ko. poste de santé bi bokk na ci poste de santé yi nga xamante ne moom moo ëpp sax naissance centre de santé wu Kër Massar malgré que bunt ak ci Kër Massar la bokk ñëpp xam nañ loolu mais au moins état tamit mën a dimbali tamit suñu gox bi xam ne tam buun ci ci mbiri la bokk. Medinatu Rasul di kon gox boo xamante ni ay infrastructure daanaka amu fi waaye tey nag ñu jël seen i bët yëpp daal di ko wékk ci digge yi nga xamante ni njiitu réew mi daal dina leen ko fa woon def. nañu bàyyi ku wax ba yéeg fàtte askan wi ndax nag président ñëw na fii ñu tàntal ko fii buntu kër santal tungu na du teew ñuy nataal mu diggee woon fi ne lii état rek moo ko mën a def ndox mi te booboog léegi mu ngi ci ñaareelu mandat. te waxajuñu ndox mi ba tey mën a gu fee jóg. suñu ASC yi amuñu terrain te dañoo soxla terrain te es te kii baa ngi fi foore baa ngi fi forêt classée baa ngi fi yaatu ba dee mun nañ fa aménager ay terrain. Macky Sall ñëw na ba fii ñu tàndal ko ba fii mu dëgg fi loo xam ne nii tey leer na naññ mais li ñuy faral di wax rek nit ñi moom bi ñu faloo kenn ku si nekk fàttal nga li nga liggéey woon mais tamit ni nga ko koy fàttali. poste police amuñu ko am benn poste santé la ñu am école benn la ñu am. ñaata doomu aadama ñoo ne ñooy yewoo Kër Mas Mbuun fii ñun xamuñu ci lu muy dund. fii buun Mbuun ab Ablaye Diop wax dëgg yàlla am nañu lu ñu yittewoo te am nañu lu ñu soxla te ñoom état ñooñu si mën a jàppale. lu mel ne ay kanaal soxla nañ ko ay làmp soxla nañ ko yooyu yëpp soxla nañ ko pour juste que maanaam euh, waaw kii madame la maire wax na ko poste police tamit soxla na ko. wax fa dëgg yàlla li ñu manqué bëri na trop trop trop te bëgg nañ ñu jàpp ñu si tamit. su ñu fekkee ne bëgguñu ñoo fontoo bëgguñu ñoo yab te xam ne ñun ñoo leen faloon nañ ñu respecté Sénégal respect moo fi amut da ngay wax ba falu. wàcc itam toog ne. askanu Medinatu Rasul gis ni bis bu ñu defee buun commune dina tax ba jafe-jafe yu bëri yi ñuy jànkonteel mu daal di wàññeeku ndaxte commune Kër Massar dafa yaatu tala mu yenu attanu ko. moom dong moom moo Euh, village boo xamante ne ci quatrième village traditionnel comme ni mu ko waxee sànq samay propos moom dong moo ci nekkul commune te il faut que nag au moins pour état dimbale ñu mu fexe tout buun mu mën ko ériger en commune parce que dina mën a permettre ñu mën a jël en charge li nga xam te moom mooy euh, population euh, buun bi au moins tam dina permettre tam ressources humaines bi fi nekk ñu mën a wane seen potentialité ñu mën a jël tamit en charge les maux de buun parce que y a beaucoup de manquements yoo xam ne déjà am nañ ko fi mais nag dafay am foo xam ne dañu koy dañu fay taxaw taxaw bi moom mooy lan parce que amuñu les ressources qu'il faut pour au moins mën a développer buun ci loolu nag ñoo ngi woo état mu mën a mu mën cee jàpp bu baax a baax. dañu nekk buur euh, buur mu nekk Kër Massar nekk téeméeri quartier ak ñeent fukk ñu pàcc ñu teg diggante bi yëmbal noor dafa yóbbu yëmbal siddu yóbbu Sicap Mbao yóbbu Kër Massar bootul Kër Massar rek ndax Kër Massar bu bootee fekkee dafa boot téeméeri ak ñeent fukk kon fukk ak juróom-ñeentee rek du Kër Massar téeméeri fukk ak du Kër Massar moo ëmb lépp. te ñun gisuñu suñu bopp ci dara ci Kër Massar. Boun mooy mooy quatrième village da nga traditionnel fii biir dakaar trois villages yëpp da nga am nekk nañ ay commune Boun moo sànc Kër Massar da nga buun moo samp moo moo sànc ay comico yi yëpp ay parcelles yëpp yi ko wër donc ñu ngi ñaan yàlla si présent bi nga xam ne moo fi nekk Macky Sall si moom lañ am yaakaar dégg nga mu defaral ñu Boun commune bu boobaa ñun population buun pare nañ. pour jël kii di Pape Moussa Camara teg ko mairie mu liggéey. bu nekk na dëkk boo xamante ni si dëkk bu mag la waaye ñun kenn considéré wuñ ci dara du maire du kenn maire sax lañuy wax ndax buñ nee Kër Massar buun mi ngi bokk ci Kër Massar te ñun gisuñu suñu bopp ñun maire duñ ko gis duñ ko dégg maire bañ na ko ba bañ na koo buun dane ne carrément man buun waxuma ci ñoom dara ndax mënuma ci ñoom dara moom la maire wax ñuy dégg mënuma ci ñoom dara ndax mënuma ci ñoom dara. kon léegi ñoom bu fekkente ne maire ci boppam nee na mënul ci buun dara kon ñun lan la ñuy wuti ci maire lan lañuy lan la ñuy wuteeti ci Kër Massar. bu dee barax bi mu ngi nii tege bu dee ndox mi kaay xool jor wax bu dee xale yu góor yi employé jeune amuñu ko amut luy am Kër Massar bu am buun insécurité bi nag moom maanaam lamp moom doo ko gis. jafe-jafe espace vert am na fi jafe-jafe terrain am na fii terrain de terrain de sport jafe-jafe euh, CM lycée amuñu ko dégg jafe-jafe marché. askanu Medinatu Rasul nag di xamle ni tey jii bu ñu nekkee di dund ci jàmm dafa fekk ni am na ñoo xamante ni ñoo leen di gestu a donte ni ci gox bi la ñu dëkk waaye bu ñu fa nekkul woon seen mbir gën a tar. xam nga gox boo gis rek dina am koo xam ne wax dëgg yàlla dina mën a des fois jàpp ci mbir yi ñi am fi nag koo xam ne wax dëgg yàlla moo ngi jàpp ci mbir yi bu baax a baax muy suñu muy benn muy ki ñuy wax Moussa kamara mu nekk président fédération des acteurs pour le développement wax dëgg yàlla nag mu yàgg nag taxawu tam waa Boune yàlla def na ne même inondation yi ñuy wax ni yëpp parce que déployé na ay moyens yoo xamante ne dina ko mën a dina mën a dindi nit ñi ci ndox bi ñàcculu na indi en même temps aussi tamit ay camion suuf indi nañ ko fi ñaare aussi ci poste de santé bi moo ngi ciy def tamit lu lu lu mucc ayib. buun lépp fu waay soxla moom nga koy jooy. lu fi waaye soxla moom nga koy jooy. moom lañ fi gis ñu ne deetawaay boobu xamoo gisaguñ bugaan gay xamaguñ ko waaye ba ñu xamee bugaan it lépp loo xamante ne si naqadi woon nañu neex nañu moo taxaw fii moo fi jëkk indi moto pompe keroog bi ndox bi feesee xuus dugg ci biir ndox mi kon nag dañ koy gërëm di ko sant ndax moom lañ fi gis ñun daal ñun ñoo ngi nii nekkuñu ci loxo yi ñu xam ñoo ngi nii mbalit maa ngi nii barax baa ngi nii jaan yaa ngi nii lépp a ngi nii suñu doom yor fee jaar amuñu dara ñun daal ñun fii nga ñu gis nii nii nga ñu gisee rek la amuñu dara ñoo ngi nii vagalam vagalo di jour woon lendemain noonu lay waye noonu lay waye

mbokki xarit ci ñu seetaan mu doonoon kon seen émission sama gox mon quartier fii ci quartier Médinatou Rassoul ci commune bu Kër Massar a jaajëfal bu baax Ila Diène ci wàllu caméra beeg logistique bi niki noonu Lamine ci montage bi Sen TV di leen dig daje ci beneen gox demati xool askan wa nañu toogee laleen neex ak la leen naqari ci fa ñuy dund. man Maria, Maria, they dead. Maria, Maria, they dead to die. sama gox sama gox sama gox sama gox mon quartier sama gox sama gox sama gox mon quartier sama gox ma neex ak li ma naqari na may dundee ca diwaan